donc bu génnee wax rek euh, xel yëpp day dem ci yow. comme ni nga mm-hmm. mel ci nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko. Mm-hmm. Euh, donc euh, ñu dégg ko aussi mu ne moom Ousmane Sonko moom moo ko bëggal boppam. Mm-hmm. dem ba waat ne bu neexee yàlla bu fekkee Ousmane Sonko mooy nekk élection mooy nekk président 2024 nit mu nu ko teree def dem ba ni sax des fois da jot ay ojo ñu naan ko si yow sëriñ nga ak waroo farak yu demee noonu donc sëñ Habib si gëm-gëm bi ma am ak bëgg gi nga xamante ne à chaque fois bu toogee da koy fësal ci Ousmane ko loolu ban jàngat nga am ci loolu. man dama ko seetaan ci euh, benn vidéo mm-hmm. ma di ko encouragé. keroog jooju bi ma ko seetaanee ba mu noppi sax. Mm-hmm. tàccu naa ko. ndeysaan parce que ko seetaanee ba mu non wax sa dëgg. Mm-hmm. dara nekku ci ayul. dafa wax li nga xam ne moom la xalaat. moom bañ na ko ba ndorteelu wax ci dafa ni carrément. je me rappelle de cette phrase. Mhm. vraiment mu ne waxuma ni Tiwaawoon moo wax wax ji may wax. d'accord sama waxu bopp la. Mhm. parce que je suis un citoyen. lii bër na ci. waaw. Mhm. man je l'encourage. d'accord je l'apprécie. wallahi bi mu ko waxee dama tàccu après. ndeysaan xam ni kii li muy wax. dëggu boppam la kenn mënul ko ci dara. d'accord parce que moom. li gaañ a xamul. Hmm. dafa jël Ousmane Sonko ñu ànd ba këram. Hmm. mu testé ko. waxtaan ak moom. saar bu mu jël Ousmane <coughs> motali saar boobu. findal na ci li nga xamante ni. waaye dama ni la man ah. boo ma teeloo rek naa la wax lépp. d'accord <laughs> man ci video yi. lay seetaan analyser. Hmm. te la mu doon wax ña ko fa seet ba ñu génnee dañu bëgg ci moom. parce que tontu na leen ci biir wax. Mhm. wane na ni. Mhm. moom péeteem lépp Ousmane la. te ngir diine moo tax. Mhm. naa la wax lu nit ñi nandul. d'accord parce que booy dénk réew mi da koy dénk koo xam ne am na iman. ku am diine la am diine nag. yombut fii Sénégal. dëgg la. di wax dëgg ba nit ñi ràññee la ci dëgg boobu. xam ni li ngay tibb di wax yëpp. dëgg la. buñ ko seetee ci diine. Mhm. dëgg gu wér peng la. Mhm. ah loolu. Ah. kan moo ko ci mën wax na ko déet walla nangam li nga wax du yoon ak nangam nangam. Mhm. nit kuy wax xalaatam. Ah. nga topp kaw kaw kaw kaw kaw di ko dëkkal fu mu dëkkul ak yooyu. li mu xalaat la xalaat libre na ci. et ni mu ko préciser que c'est un citoyen. il a droit ah. à vérifier les affaires. de son pays di ci wax parce que c'est un citoyen kenn mënu fi rombal citoyen bi jébbal ko li nga bëgg def ci réew mi mm-hmm. tibbee ko neneen noo xam ne moom àndu ci quand même li ngay def mm. war na leer ci moom bu ko defee mu mun cee waxtaan ak yow d'accord mais papa boo toogee muy wax retour yi mu ci jot donc yow sax des fois da ngay dégg ay retour ah, des fois nee na day jékki-jékki ay jigéen envoyé ko vocal ne ko gis nañ Euh, fi nga féeteek yu demee noonu ah, donc tamit boo toogee dégg mi am euh, yenn retour yooyu papa naka la lay def loolu. yeggul ko fii lu toll ne tarfatal ay ne <laughs> ku gëm li muy wax la. li muy wax yëpp. Mm-hmm. yàllaa tax muy wax. lu mm-hmm. question féete. et boo féetee nga wane ni fii laa féete lu ci ne. ana erreur bi. Mm-hmm. parce que sëriñ la war a te wax. mais sëriñ bu du toppatoo affaire njabootam. Mhm. mosoo gis fenn sëñ si dañu am kër. Mhm. te li ñuy def pour état bi seen waa kër yëpp ay doomam ak i mbokkam ak yëpp ci la ñu. Mhm. kon nag affaire la boo xam ne comme moom teew na te mën na ci wax loo xam ne day indi progression. indi avantage pour dëkk bi mais libre na ci wax ci. d'accord nit ñi dañuy critiquer nit yi pour dara. te moom nekk na ko xam ne nii li mu bëgg wax dana ko wax kenn amul lu toll ni tarfatal ay ni ba ne ko kii sañoo ko wax. la su boobaa nga dégg bul maa la wax loolu. Mm. moom li mu xalaat lay wax te mm. dëgg la ci moom buy wax loolu. Mm-hmm. koo xam ne ñëw na seet si la nga di ko testé. waaw saar boo jël mu mottali la saar boobu jox la. waaw. loo mm-hmm. gëm diine. lii moo tax mu bëgg ko. <laughs> que ku gëm diine la. ndeysaan dama ci ànd moom am na bis. waaw pourtant ñëw naa fii di ko wax sax mais dama tur bi. tur bi tax. Mm-hmm. si dabaax Malick waaw tuwaar fa kàll macha allah. bu amoon téeméer yoo xam ne kii nañ mhm. kon njàqare gi nekkee yëpp. Mhm. àddina dafay neex dafay mhm. deñ d'accord que nit. boo waxul dëgg safaana wax waxagul safaana dëgg. Euh, yàllaa ngi fi de. d'accord te ëllëg na ñëpp bàyyi seen xel ne. dañu làmboo suuf. ñu tëdd ñu njeganal ñu suuf. Mhm. làmboo ko. boo boo ñemewul sàngoo suuf. wallaahi suuf dana la mës sàng te doo ci mën dara. Mhm. foofu la dëgg gi de. <laughs> ndeysaan papa xam naa li ngay wax nii donc ah, sa xol nga ko ah, ah, nga ko ci bëyee ndax ku ku mel ni sëñ Habib si donc ñu bari aussi bu jamono ji tollee foofu ñu ngi doon wax bu jamono ji musaan toll fii sëñ maam Abdou sëñ maam Abdou Aziz Tabax da daan génn wax ci donc tey Sénégalais yëpp di ko xoolee ki nga xamante ni moom mooy sëñ Habib si donc tamit loolu papa lan lay def ci ñi nga xamante ni moom mooy Sénégalais yi doon laaj bi fi maam Abdou Aziz si nekkoon tey doomam ah, di génn di wax yenn dëkk yi di def ay révélation ci li nga xamante ni moo am ci réew mi. gàcce lay lay lay lay lay dawal nit ñi. gàcce mm-hmm. ko analyser. Mm-hmm. li muy wax du du njëriñu kenn maanaam benn réew rek. c'est yu comme CEDEAO. Mm-hmm. nañ ci jëf euh, jëriñoo. c'est ça. que xam nga Ousmane Sonko wutul rek Sénégal. dara wax ko wax jox rek Sénégal maanaam Sénégal rek tax ko monde ci boppam mën na ko téye mën na ko yore mm-hmm. te li mu lay wax nii dinaa la ko waatal billaahi mm-hmm. te ñeme naa ko lay wax ndeysaan <laughs> ñàkk xam nag li mu waral dafa bari suñu ñàkkee sonko xamatuma beneen sonko buy ñëw maanaam buñ ñu sonko bu ko xasee ba ñàkk ci élection yi wala ci élection yi sax laay wax 2024 yi ñu jub dama ne. suñ ko xasee ba ñàkk. Mhm. gisatuma beneen Sonko bu ñëw bu mel ni moom. Mhm. xanaa ñu wuti ñàq boo xam ni dana mën a muulee beneen Sonko ba moolu xelam bi. Mhm. mu dugalaale ko ci mool bi. ndax mu mel ni Sonko bii. Euh, papa moo tax nga ne bu ñàkkee Ousmane Sonko euh, lan moo waral nga wax loolu. mais xam ko tax man duma ko bàkkal ndax di ko léebal wala leneen parce que gënuma mais yàlla defal na ma sutura soo xam ne nii nit ci boppam xam naa ko te duma ko bàkkee lenn loo xam ne lu ñaaw la parce que yàlla li mu sàkk mu gënal ko loo gis nit la ci nit la dooree mhm. loolu moom lu ma néew néew xam-xam mhm. naa ko mhm. te koy faral di wax kon nag du moytu nit. Mhm. moo gën nee naa ne Ousmane. Mhm. bu doon taw tey lañ koy misaal. ci wicc wiccal la ne xam nga luy wicc wiccal. maanaam bu xiinee bay wis. non day génne ay ndox yu sew yoo xam ni. d'accord tooyalul nga fa. Mhm. mais bu wisee bay taw. en ce moment la ñu xam kuy Sonko. fi mu nekk nii xamaguñu kuy Sonko yàgg naa la ko wax. yàgg nañ dañu ma wax. dafa émission yu bari donc da ngay waaw waaw. même bu dul élection bii laa la wax. Mhm. ca kanam dañ koy xam yi d'accord. dama lay jox benn misaal. waaw. Euh, tous ces jeunes. Mhm. qui ont pris la mer. waaw xale yi nga xam ne ay ndaw lañu. waaw song géej gi. Mhm. ak ni ñu bare. yaakaar gi ñu amoon ci Sonko. Mhm. ak fitnaal bi ñu koy fitnaal ba amatuñu yaakaar daal ne kii dana ci génn. boo leen tax léegi bébéeku daal ne kii comme kii kay. Hmm. mënatule. wala euh, kii ne tu vas voir. am na yeneen gaal yoo xam ne buñ leen jàppul. Hmm. dana am yeneen gaal yoo xam ne dina ci yokk. maa la wax lii. d' accord euh, papa foofu noonu lu am solo la donc dama bëgg ñu taxaw fa parce